sëriñ bi nag mi ngi ndokkeel mbooleem ñi nga xamee ni jàppoon nañ ci bis bi nga xamee ni magam ji wasilaam léppam bi sëriñ Sidi Muxtaar Mbakke ñuy ñaan suñ borom yokk ay leeram taxawaay yu am solo yi nga xamee ni taxawu na ko diine ji taxawu na ko lislaam bi waaye taxawu na ko yoonu murit bi ay jëfam fes lool ba kenn du ko fàtte nit ñi itam taalibe yi ñoom it wax dëgg yàlla kenn mun leen a fay dagg nañ seeni i yitte seen i lépp jóge ci mboolem goxi àddina yépp ñëw ngir xam ni seen kilifa Cheikhul Khadim te jii moo bàyyeekoo ci daaru dunya waaye fekki maamam fekki muy juróom Cheikh Mouhamadou Lamine Mbacké fekk itam ak liggéey. wacce da ca munta ñak wa dañ koy boole ci bis yi nga xamé nag mom la Cheikhul Khadim doon ñaan sunu borom ne ma ngi ñaan bis yi nga xamé ni ci lay dajé ak yow muy bis yi nga xamé ni moy bis digël ci sama mboolem bis yépp te moy dajé borom bi di mbégte di yiw di xéwalo lo xamé ni aduna la ak àllaxira kon Serigne Abdou ndahi borom dër bi ñu gën ko xam Serigne Abdou Koumba Suura mi ngi sant ñepp ni ñaanal ñepp ci taxawaay ak ci choona yi nga xamé ni jangoon nañ ko lepp ngi dem Serigne Touba di ci ñaanal ñepp sun borom dimbali leen jàppale leen bu baaxa baax gannaaw loolu nak ñu ñew di leen leralal ni euh jotaay bi ñu tok ni li tax ñu ci euh, yëkëti ay kaddu. dafa am yeneeni nit moo xam fii ñu nekk la ci guy mbind yoo xam ne dañoo yëkkati seeni kàddu bëgg jëmale wax ji walla xilaafa gi bëgg koo jëmale ci feneen maanaam ay wax dafa am ci xilaafa gi loolu nag amul dara luñ ci nëbb ndax leer na ci mboolem boppi nit ñu bare bari ci média yi siiw na ku ñëw ku ne mi ngi laaj looloo tax itam ñu ciy feeñal ak di leeral li nga xamee ni moom moo am tey jii nii sama kàddu gii may wax nag maa ngi koy waxee ci képp koo xamee ni dëkk na kër sëriñ Baara Mbakke te bëgg lu baax te bëgg lu rafet ak mbooleem waa kër sëñ Tuubaa yi nga xamee ni lu rafet rek ak lu baax moo leen ñor ñoom ñépp ànd nañ ci kàddu googu yi daal ni sëriñ Abdullahi Mbakke mii nga xamee ni mom lañu gëna xamé ci sëñ Abdou kumba Suuna moy khalifa Cheikh mohammed Lamine Mbacké kenn ku ne xam na ni Cheikh mohammed Lamine Mbacké bi fi jëgë yag na lool depuis 1936 mo bàyyi fi njaboot go xam ne gu sew la ki ci gëna na ràññee ba ki ci gëna na xawa nek nekk mag mooy Serigne Moudou baram Mbacké mi nga xam ni moy taw cheikh Khadim ba bokk moy taw ci sëti cheikh Khadim waye Serigne abdou Aziz Mbacké njabot gi nak Euh, nekk bu sew ci la sunu borom dogal nag ba mu tàbbi ci loxoy sëriñ Mbacke Madina sëriñ Mbacke Madina di magam bëgg ko lool fonk ko yar ko lu baree bari lu nekk ci moom mbaa lépp sax laay wax sëriñ Mbacke Madina moo ko def ci moom nga xamee ni euh, jikko ja melokaan wa doxin wa lépp sëriñ Mbacke Madina la loolu nu muy dox doxiinam yor melokaanam dëddu nekk ci barab koo xamee ni doon fa jaamu yàlla rek ngir euh, ci yar bi ñu ko yar ak euh, euh, lépp loo xamee ni lu jëmul ci yàlla la amut a soxla loolu moo tax sëriñ Abdullahi Mbàkke mii ñu bare bari jotuñu ko xàmmee sëriñ Sidi Muxtaar nag daan nañu dénk ni sëriñ Abdullahi mbakke mii da ngeen ci bàyyi xel euh, dénk nañu ko dénk na ko itam lenn ci ay doomam muy sëriñ Abdullahi mbakke mii toog kon loolu lañ doon wax ne euh, li nga xamee ni ñu ngi koy di dégg ci guy mbind yi nga xamee ni que Cheikh Mouhamadou Lamine Mbàkke la ci sëñ Abdou Coumba Suura des ci doomu sëriñ Baara yi ñu am leneen lu ñuy wax mbaa ñeneen di am fu ñu féete mbaa lu ñuy wax ngir leneen loolu yi nag laa ñëw di ko dénoncé man mi nga xamee ni maa tudd Basiiru Mbakke di xalifab sëriñ Cheikh Coro Mbakke man mi maay leeral loolu du ma wax sax ndax ñu bari xam nañ man du ma dox ci ay caaxaan du ma wax ci ay caaxaan benn intérêt wala lenn ñoruma li ma ñor mooy liggéeyal Cheikh Mouhamed Lamine Mbacké rek fu dëgg nekk nag foofu rek laa nekk fu dëggu nekkul nag man Sëñ Bara rek lay doon su ma ca wéetee itam ak luñ ca mën a fekk rek na ngeen xam ne Sëñ Abdoulahi Mbacké mii mooy xalifab Cheikh Mouhamed Lamine Mbacké màggalu Mbacké bi itam ngi jub si mu ci soññ ñëpp di ci soññ ay doomam ak ñëpp ñoo xamee ni Euh, euh, jëmmi toogaayam bii rafetlu nañ ko te yéene ko ko mi ngi ci woo ñépp di ci ànd ak mbo eh, eh, eh, ci mboole mbokki taalibe bi yëpp kon jàpp naa ni lii lañ amoon ci leen doon wax lépp lu ci dëng nag ci sunu ko matadi la ak sunu xel mu gàtt waaye liñ bëggoon a jàllale moo gënoon xaj ne gën a rafet lii te gën a mat képp koo xam ne dégg na ci lenn loo xam ne nur na ab jamaj jubluwuñ ca loola jubluwuñ ca itam leneen lu dul kër sëriñ baara benn bopp la cheikh mouhamadou lamin mbakke mu cheikhul xadim mi nga xamee ni sëriñ siidu muxtaar mbakke lan la jógoon di ko taxaw di wax mooy benn le lii nga xamee ni mooy diine ji dégg ngeen ko ba tàyyi mu ni bëgguma ku wax ci génn kër di ci teg leneen jiine jëpp benn la ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñëpp benn buur lañ am génn diina lañ am te mooy diina lislaam loolu yi nag mooy symbole buy mbind mooy bennoo nekk benn képp ku mag topp ndax sëñ Muudu Mustafaa loolu la ñuy jàngal ku mag na jiite bàyyi itam mi ngi fi mag fi ñëpp kon nag sëñ Abdullahi Mbàkke borom dër bi ñu gën koo xam sëñ Abdu Kumba suuna kooku tey jii la yàlla dogal muy ta benn takk ndeeru bu góor bu des ci kaw suuf ñu koy xoole Cheikh Mouhamadou Lamine Mbàkke moom mi nga xamee ne tey jii mooy xalifa Serigne Bara kon loolu laa amoon ci lu ma doon leeral ñoo ngi jégalu ci kàddi lépp lu ci ab jamaj wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf macha allah